aus billahi min asheytaan irrajim bismillahi arrahmaan irrahim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ndokkee leen di leen balox rafetlu ànd bi del si ak yéen ci beneen bunt ci firi gént comme niñ ko baaxoo fan yi waxoon nañ ñu ngi ci épisode yoo xam ne dañoo bëgg lépp lu aju ci jaan comme dafa bari lu ñu ñëw ci gént suñ ci paree mu bañ nekk nekkati loo xam nit dañuy woowati wala mu ñuy audioti wala muy fayee ci téeméer pour laaj ko da ngay dugg rek lépp loo soxla ci gént jàng da nga koo ca fekk incha allah ay vidéo yu toftaloo la dañ bëgg léegi lu nekk rek ñu def ko noonu suñ paree danañ ko def xar def ko oto def ko et cetera et waxoon naa ko bu yàgg ne dañuy bëgg arrêté euh, transfert 500 yeeg audio yi nga xam ne ñëpp ci page bi ñuy xool léegi pour am leen satisfaire tey ñu del si gént jaan bu am couleur bu verte ak couleur bu blanc defe na chaque jour dinaay répété ne nit ñi li ñuy firee gént jaan ak li ñu gis boroom xam-xam yi bind ko ci dafa wuute lool lool fii danga daan naan dama gént jaan ñun la jaan doom la taxaw dama gént jaan jaan noonu la point dama gént jaan ci ne la seytaan la taxaw te wax naa ko ni mën nañ cee def ñaar fukki vidéo couleur jaan yi dafay jouer façon jaan yi dafay jouer situation yi mu fekk nit ki dafa joué ci gént gi contexte bi nga ko génte dafay joué tey couleur bi ñu indi mooy verte mu ëpp vert ak noir ñu ëpp lu leen di nit di gis ci gént ci jaan yaakaar naa beneen bi couleur bu blanc ñaari la ñuy waxtaanee jaan bu vert ki may njëkkee góor góor bu am soxna nga gént gis jaan bu am couleur bu vert su la fekkee nga feebar day yu wér ci feebar day firi wér ci feebar bu dee danga gis ay jaan yu verte yu bari nag ci góor baaxul day firi bari ay nit ñu la añaanee nit ñu soxor wala nit ñu doy waar baaxul boo géntee gis jaan bu verte muy dugg ci sa kër wala ci sa néeg ci góor baax na ci gént day firi wërsëg day firi alal ci yow baax soo géntee gis jaan bu verte ci sa kaw lal bi ngay fanaan euh, baax na ci gént day firi ëmb ci sa soxna ëmb boo xam ne doom bu góor lay doon li moo tax toujours may wax ne di leen ñu topp di suivre bu baax bu ngeen toppee ci vidéo yi passé wax naa ne jaan ci kaw lal am na ci yoo xam ne dama wax ne baaxul surtout nga ko waaye bu dee bu verte nga gis ci sa kaw nga tëdd ci sa kaw nga gént gis jaan bu verte ci sa kaw bi nga tëdd day firi ëmb ci sa soxna ak doom bu góor moo tax gis nga li wax toujours couleur benn couleur jaan bi dana changer gént bi kon boo toppee wax ji góor gu am soxna daanaka quatre vingt pour cent ci gént jaan baax na fenn la bonee mooy jaan bu verte boobu mooy nga gént gis mu yu nekk jaan yu mag vert yu baree bare bari baaxul ñëwagu mën a ki jaan boo xam ne yeew la wala yu mel noonu dégg danaa ci ñëw jigéen boo xam ne am nga boroom kër nekk ci néegu say gént gis jaan bu verte day firi stabilité dal jàmm ci sa néegu sëy bu di laa fekk ci feebar day firi wér ci feebar bu di laa fekk ci njàqare day firi njàqare yu dañ boo géntee gis ko muy dugg ci sa kër wala ci sa néeg day firi wërsëg day firi alal day firi xéewal bu day werte yu bari lam firi woon ci góor day firi bari noonu wala nit lay fexel jigéen ji ëmb génte gis jaan bu verte day firi sak am doom jege lool waaye dina firi doom bu góor ci la nga ëmb jaan ci jigéen ji ëmb daa nekk fu mu ko gisee tiit te ñaari couleur rekk moo bon ci jigéen ji ëmb mooy bu zone ak bu multicolore bu dul boobu ci jigéen bu ëmb couleur bu mu ci mën a doon baax na ci gént xale bu góor ama ko soxna gént gis jaan day firi soxna yàlla mën laa may soxna ci lu yàggul dara bu la màttee jaan màttala ñëpp ñoo ko bokk baaxul bu la màttee day firi xarit bu lay fexel xarit boo xam ne pexem cugul jaan yu bari uverte ci célibataire bu góor la mu firi ci bu góor gu am soxna lay firi ci mu nit ñu añaan ñu bari wala bari wujju mbaa bari ñu ko ñu xale bu jigéen amagoo jëkkër gént gis jaan bu verte day firi lu yàggul dara lu yàggul dara jëkkër du baax ci yow baax na ci gént ala xaalin lii moo dellu ci jaan bu vert bu dee bu weex jaan bu am couleur bu blanc ci gént ki ma njëkkee mooy góor góor gént gis jaan bu am couleur blanche surtout ci sa biir yére nga gis ko ci muy génn wala mu nekk sa yére baaxul day firi ñàkk sa alal lépp ci benn yoon maanaam sa alal ju bari mën nga koo ñàkkanoo ba jaar fa ñàkk ba faw mën naa nekk ci càcc mën naa nekk ci yàqule mën naa nekk ci lakkale mën naa nekk mën naa nekk baaxul ci gént couleur bu weex ci jaan léeg-léeg day firi noon bu nga gént gis ko day firi noon yoo xam ne dafa bokk ci famille bi wala ci say xarit mbaa ci lay jege ñaale euh, dañu wax nag ne boroom xam-xam yu bari dañu wuute wuute lool ci gént jaan bu am couleur bu weex waaye ñun ki nga xam ne ci lañ ëpp lu ñu sukkandiku mooy Ibnu Sirin daf ne paaxul ci góor gis naa nag Ibnu Shahin gis naa Annablusi ñoom dañ ne jaan bu weex ci góor baax na day firi noon waaye ngeen baal ma bokk bonul ba àgg fenn fi day firi noon waaye noon boo xam ne du la mënal dara wala noon bu néew doole ala kulli li gën a wér ci ibnu sirin bi nga xam ne lañ ëpp lu ñu sukkandiku moom mooy def ne baaxul ci gént te firi naa ko ci góor li ma ci wax jigéen boo xam ne yaa ngi ci néegu say jaan bu blanc baaxul day firi jafe-jafe xat-xat waaye du yàgg day ñëw rek jaar jàll ci jàmm ak salaam ala kulli xaalin boo ko la sarax sax mën naa ñàkk wala dana firi noon bu la jege lool boo xam ne dafay def ay pexe pour yàq sa dund waaye bu dee jigéen bu nekk ci néegu say génn fekk nga fekk nga mu fekk la nga feebar tëdd feebar génn gis jaan bu weex day firi wér ci feebar gis nga différence bi waxoon naa la ca kaw ca vidéo bu njëkk ba jaan bu ñuul ci aji feebar surtout ci sa kaw lal gis nga bokk na ci yin bonal bu dee bu weex aji feebar day firi wér moo tax ma leen wax toujours couleur jaan yi dafay changer gént boo géntee mu màtt la wala mu di la dàq wala muy def ay pexe di la tiital nga koy wut muy kii bu la màttee baaxul noonu la waaye bu dee danga koy kii mu lay mu mel lu lay tiital ci jaan bu weex ci jigéen buy sëy day firi góor day firi jigéen ju bëgg sa jëkkër jigéen ju nopp sa jëkkër laakul xel jigéen ju doon sëy ba tas jaan bu weex ci moom baaxul day firi njàqareek xat-xat waaye dañu wax ne jamono ya ngay gént gént ki loolu ki ki ñu jëlee xam-xam bi daf ci insister ne jamono yi nga koy gént day firi njàqari xat-xat ya day jeex ci lu yàggul dara ala xale léeg-léeg dana firi noon boo xam ne amul amul doole lool waaye noon wolof nee na noon tuuti jaan bu weex képp koo xam ne dafa laa fekk ñu liggéey la jabar jàpp la ba tëral la feebar gis nga oh, chaque jour ma tax may wax situation yi day changé gént yi maa ngi lay wax baaxul sànq ba tey waaye mu fekk la njabar jàpp la maanaam dañ laa liggéey ba liggéey bi sonal la tëral la feebar nga gént gis jaan bi wax day firi njabar ca day dañ loolu ñëpp ñoo ko bokk bu dee loolu amul mën nga sukkandiku ci yi ma njëkk wax ci kaw oh, bu la màttee wala mu diloo ngeen baal ma nga gént jaan bu jaan bu weex ci jigéen boo xam ne danga doon sëy ba tas mu lay mu lay wut nii di def ay kii màttu la da lay def ay pexe pour dàq wala yu mel noonu ba nga tëkkoo mbaa nga rëcc ko day firi mucc ci sa pexe noonu wala yëkkatu ko ci seen kanam jigéen ji ëmb jaan bu weex ci sa kër day firi wér lool sax day firi léeg nga nekk nit koo xam ne ko yàlla nit dénk xikma ma nga maanaam nit ko xereñ nga wala yàlla jox la doom joo xam ne nekk ko xereñ jaan bu weex ci jigéen ji ëmb waaye dina firi doom bu xale bu góor amu ko soxna gént gis jaan bu weex fekk la nga feebar day firi wér ci feebar wala mucc ci pexe nit ñu lay fexeel gis nga wala mucc ci pexe nit ko añaan gis nga maa ngi lay wax baaxul sànq ba léegi ñenn ñi ñëw ci xale bu góor amuloo soxna mu baax ci yow feebar wala mucc ci pexe ay pexekat bu la fekkee ci ngay jàng góor gu amul soxna di jàng gént gis jaan bu weex day firi réussite ci sa njàng baax na ci gént jigéen amagoo jëkkër gént jaan bu weex day firi noonu waaye noonu bi dañuy wax ne noon bu faible lay doon loolu benn la léeg-léeg dana firi yow ci sa dund danga ci am euh, tolof tolof ci wàllu mbëggeel maanaam euh, euh, trahison la walla yaakaar gu tas ci wàllu mbëggeel la walla walla walla maanaam ab tolof tolof ak njàqare boo xam ne ci relation antifiya lay dellu maanaam alaaka antifiya di bëgganteeg nit am ca tolof tolof walla xat-xat walla ñu woor la walla yu mel noonu ala kulli xaalin loolu la ëpp lu muy firi ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné partage bi ko am laaj ngeen jaar ci yoon yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.